allahu kon fi ñuy jeexalee daal mooy nañ waaj ñun ñëpp rek beneen bi ci des nag mooy xaaj badara ñu teg ko ci am atumaan ci li sëñ sii di wax benn rek laa ciy teg mooy fi jeexale xam nga sëñ sii di dafa ne gëlëm gi yées na ñetti yës benn bi lum ko wax daf ko ne fii mooy sa kër beneen bi mu ne ko fii mooy jumaa ji beneen bi mu ne ko fii mooy sa xabaru bi ngay tëdd ëllëg muy ñetti yées yi gërëm gi yées ba mu paree lu lu ku ñëw du jibril lu mu indi baqara lu ca jiitu alif benn yées bi laam benn yées bi miim ñetti yées bi oh, yooyu yëpp ay code la yooyu yëpp ay code la waaw moo tax alif lam miim yi nga gis ci alquran yëpp xuruf yooyu yëpp ay code la waaw yooyu yëpp ay code la man boobu lay décoder rek jox leen jox ñu ñaan li tax wàccul fenn fu dut période boobu ak heure boobu mu ne alif kër gi mooy kërug yàlla mooy aliful ilaahi mooy kërug yàlla la ñépp ko mokk alif bi mooy aliful ilaahi moo tax allahu boo koy bind alif bàyyi njëkk laam-laam haasa xeer du noonu mooy al moo tax nga dégg Seydul Xaaji Malik daan wax ne kër gi santul si yàlla la sant foofu la ko jëlee déggu leen ba tàyyi Alaaji Abdu wax ko mu ne Seydul Hajj Malick daf daan wax ne kër gi santul si yàlla la sant mooy kër yàlla la la bëgg wax nit ñi moo tax alif bi mooy aliful ilaahi mooy premier yes bi pour mu won yonent bi ne ko fii ngay dëkk du sa kër de sama kër la laam bi ñaareeli yes bi mooy fan mu ne mooy jumaa ji mooy lutfullahi yërmande yàlla jàkka joo gis ci kaw suuf yërmande yàllaa ko lar yàlla bëgg ñëpp mucc bëgg ñëpp dem àjjana moo tax mu sos jàkkam yi moo tax julli ci jàkk ëpp doole julli ci kër ñaar fukki daraja ak juróom benn la ko ëppee ñaar fukki daraja ak juróom benn la julli ci jàkk ëppee julli ci kër ndax yërmande yàlla ja ko la la tax te waxtu wo jullee ci jàkka waatal ne julli gi nangu na ndem laab nga rek yow sa kër nag man nga laab sa yére laab sa place laab nga jublu xibla teewlu ne asalaamaaleykum yàlla ne soxla ma parce que neexu ko waaw ah, daf ko neexul mën nga laab sa yére laab sa makkaan laab nga jublu xibla teewlu ba sës sëlmal yàlla ne bugguma jëlal def nga ko ni ma la ko waxee waaye na may nangu nanguwuma nga ne ko lu tax mu ne sa këram a neexul loo ci mën dara nga ci mënul waaye dagaj biir kër yàlla loo fa def mu nangu ko moo tax yonent bi daan wax ne dee leen moytandiku def suul adab ci biir jàkk boo demee Seydil Hadji Malick def ci téere moom adaabul adabul masjid Seydil Hadji Malick def na ci téere pour wattandikuloo nit ñi jàkka fo ci wala wax ci waxu caaxaan ndax doole ji mu am ak respect ak orma bi ko yàlla jox mooy lutfullaahi lutfullaahi boobu nag ñëpp a ngi ci biir waaye Seydina Aboubacar a ci jiitu Seydina Omar topp ci Seydina Ousmane topp ci Seydina Ali topp ci ñoom bi yonent bi génnee ba noppi ñooy ñeenti yërmande yàlla yi dara yonent bi seydina aboubacar seydina omar seydina ali ak seydina ousmane ñooy ñeenti yërmande yi dar yonent bi muy ñeenti xibla yi aboubacar amaman seydina omar xalfan seydina ousmane yaminan seydina ali shimalan yonent bi nekk ci digg bi di juróom moom mi ci digg bi di juróom nag mooy commandé lépp moo centraliser lëpp ñeenti ñooñu ñooy ñeenti koñi àddina bi ñeenti ñooñu ñooy ñeenti koñi àddina bi moo tax foo dem ci àddina bi ñu nga fa boo demee ba fële ca uh, gunjuur dégg nga ñu ne am na saxaaba bu fa tëdd te saxaaba yëpp ñu ngi leen xam fële gunjuur fi Cheikh Omar demoon demal danañ la woon bàmmeel bi bàmmeel piir la saxaaba fa tëdd foo gis ci koñi àddina bi ñeenti koñ yépp am na saxaaba bu fa tëdd wa illaa àddina bi du dox bañ koy rob fañ koy rob lañ ko transport ko transporté koñi àddina boo gis am na saxaaba bu ñu fa suul gunjuur ci benn rukk nu àddina bi la bokk moo tax Cheikh Oumar demoon fa gunjur gi du dem dem nga fa waaw ah, kay ah du dem nga gunjur vacances yi passé boo demee dañ lay woon bàmmeelu sa aba bi mu nga fa si obligation pour mu nekk fa Cheikh fuuti yu bi muy taal jihad la ko jinne ji wax ne ko demal gunjur boo demul gunjur danañ la duma ndax iqlim yi benn bi gunjur la sampu te malaaka mi nga xam ne moom nga mën a waxal mu wax ak yàlla fa la nekk malaaka boobit nekkewu fa lu dul garde àddina bi ak garde saxaaba bi saxaaba dafam doole su amuloon ci àddina bi àddina bi tukki na wa alqa fil ardi rawasiya an tamina bikum rawasiya yooyu mooy ñoom bul jàpp ne montagne yi la de ñoom mooy ñooñu wa alqa fil ard rawasiya ñu ne ko lu tax mu ne an tamida bikum damay bañ ngeen pëtëx moo tax ma sànni benn buñ ci nekk ci koñ ñu ne ko lu tax mu ne ñoo ko mën a téye dégg nga mooy laam bi laam boobu nag moo représenté tous les peuples peuple bi yàlla am yépp ñu ngi ci biir laam bu nekk ci biir jàkka ji ku bëgg ak ku bañ nag yaa ngi ci biir foofa la rassemblement bés penc di amee moo tax yonent bi bu dekkee du seqi benn paa dégg nga wax bi bu baax li yàlla am yépp foofu la ko dëxëñ moo tax Medina moo ëpp doole Makka ci leer ndax leer gi jollee ci yonent bi di jollee ci kaaba gi ndax kaaba gi yonent bee tax ñu bind moo tax yonent bee ëpp doole kaaba gi huwal qiblatu huwa qiblatul arwaaxi waaw sallallahu alayhi wa sallam huwa qiblatul arwaaxi roox yëpp ci moom la ko yàlla branché ci moom la ñuy jublu moom donga jublu ci kaaba gi moo tax moom dong nga mën a julli ñi ci des ñëpp dañ koy roy moo tax mu ne sallu kama raaytumuni usalli julli leen rek ni ngeen gis may jullee waaye mënu leen ko man dongo nga mën a julli su ngeen jullee nag yàlla yéegal leen ci man loolu <laughs> jeex na moo tax mu ne sallu kama raaytumuni usalli julli leen ni ngeen ma gis rek may jullee roy leen ma ci waaye ni ma koy defee mënu leen ko su ngeen jullee nag ba noppi dañuy jël seen julli yooyu aj ko ci sama bos ngeen di wagon may may bopp saxaar bu ma diiree rek mu dem walladina amanu wa tabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim ku ci jiitu yonent bi am lu tax alxaq alxaqna bihim zurriyatihim wa ma alatnahum min amalihim min yàlla ne na jëf ji li muy woyof woyof du ma la ci topp te du yàq dara ci ñoom seen tiyaabo yi mooy lay ñun dañ woyof le waaye ki diis le nag moo ñuy yóbbaale moo tax Seydina Cheikh ma dugg foofu bi Seydi bi ñu laajee na Cheikh secret salaatul fatihi ci yow la wala ci salaatul fatihi la nekk mu ne déedéet ci man la Cheikh ah te neex na dégg keneen a ngi koy sikkar te amu ci li ci taalibe Tijaan di am ah keneen a ngi koy sikkar amu ci li ci taalibe Tijaan di bi ñu laajee Seydina Cheikh ne ko ci yow la nekk wala ci salaatul fatihi la nekk mu ne ah neexul ba neexul nag ci man la nekk. ñu ne ko lu tax mu ne ndax taalibe yëpp ci sama pouvoir lañ leen di fay xam nga noo koy déggee Baay Alaaji Ibrahima Sakho moo ko toj nee na bu bu bu bu bu jotee te léegi tey ku dem Saalum xam ci dara jimmale fa la dëkk mu ne bu teret jotee am na ko nguur gi di yoon ni mooy seefu seko bi benn baskil lay teg toog ca gannaaw tiim baskil bi nekk ci biiroom ku teg saaku ñu posel la mu noteel la nga dem ci kees gi ñu fay la mu ne da ngay gis baara ñilli yi mooy ñi yennu saaku yi di daw di bëcci di wàccee camion bi de déchargé ko vingt tonnes jeex wala chargé vingt tonnes ba fees mu ne te sulusu ki toog ci bureau boobu mën naa fay ñoom ñoom ñëpp ndax ñooñu yëpp bu camion bi jeexee deux mille cinq cent la ñuy am kenn ku ne kenn ku ne deux mille cinq cent ngay am ka ci gën a bari la cinq mille lay am nga yeb camion vingt tonnes wala nga décharger camion vingt tonnes ñu fay la cinq cent francs wala deux mille cinq cent mu ne sulu si ki toog ca bureau ba di note ne vingt tonnes la maanaam ceeru salaire am rek mën na fay ñële ñu ne ko lu tax mu ne kii ndigalu buur la fi toogee que doole dooley boppam lañ koy fay dégg nga mu ne kii ci ndigalu buur la fi toogee buur a koy fay waaye kii chargé camion bi nag dooley boppam lañ koy fay moo tax du bari leer na kay bàyyi alaaj Ibrahima Sakho rahmatullah alayhi wa radiyallahu moo ko wax beneen bi ci des neex na digg li bàyyi bu Sakho wax leer na moo tax Seydina Cheikh ne ci sama doole lañ leen di fay waaye du salaatul fatih bi moo leen di fay ci sama pouvoir lañ leen di fay waaye du salaatul fatihi ndax boo sikkaree day mel ni moom moo sikkar niveau bi ko yàlla di yéegal ci moom la la koy yéegalale bu dul yow nag doo ko am budul moom doo ko am moo tax ñu sant la nga jël ko jëlee ko ci ko am ndigal ba ca moom moo tax nga di ci am lam ca am te du yàq dara ci li Seydina Cheikh am moo tax mu ne taalibe yi ñu ngi leen di fay ci sama pouvoir waaye du ci salaatul faatihi lañ leen di fay mu ne yëf yi ci man cheikh la waaw mu ne yëf yi ci man seydina cheikh la waaye du ci taalibe yi kon laam boobu nag mooy peuple bi yépp li yàlla bind min ladum aadama min ladun aadama bi buuf tadiwal ñu ngi ci biir laam boobu ñu ngi ci biir lutfullaahi miim bi nag mooy mulkullaahi miim bi mooy mulkulaahi ndax yonent bi fam xes tëdd buur la fa dara dootu ko fa metti ba bés bañ ci taxaw mu mun na dagaj àjjana ànd ak ñun ñëpp ak mboolemi mi jullit te balaa ñoo yéegal kenn ci nguurug yàlla gi moom moo koy vérifier toogaayu buur la toog tey yonent bi waaw toogaayu buur la toog balaa ñuy yéegal kenn mooy appuyer wala doo yéeg ku ñuy wàccee it mooy appuyer ñu wàccee la qul illahumma malikal mulki tuuti mulka man tashaau wa tanziul mulka min man tashaau wa tuizzu man tashaau wa tuzilu man tashaau yu tax lu tax yow yonent bi bi yadikal xayru xayru xayrihimi waaw hmm. <laughs> ah, doo ko delloo ci yàlla de bu la neexee hmm. bi yadikal xayru nga jël nag ne innaka ala kulli shay'in qadir yow yàlla ndax yaa may yonent bi pouvoir boobu Hmm? waaw kañ moo tax foofu yonent bi tëdd tey tiraayu buur la fa tëdd waaw tiraayu buur la fa tëdd te buur bi ko fa tëralit mooy yàlla buur booboo koy garde moo tax yàlla noon ko bàyyil ñëpp te des ak man wallahu yaasimuka min annaas ndax bés dana ñëw ñëpp daw la man maay des moo tax nga delluwaat nag ca la ba ca kaw balaa alif laam miim ndax saaru wàcc rek laa ko jiitu moo ko gunge ba saaru yegg si la door a tege ca kaw boo demee ca basmala du lay njëkk a def du nii alif boobu mooy yonent bi looy defaat du nii looy tomb wala astaghfirullah da nga naan nii du alif alif boobu mooy yàlla looy defaat nii lonk nga ne baa baa boobu mooy rasulullahi luy départ ci moom lay dépare mooy nuqtatu baa boobu tomb boobu mooy yonent bi siin bi du ñetti bëñ la am benn bëñ bi mooy Seydina Aboubacar beneen bëñ bi mooy Seydina Omar beneen bëñ bi mooy Seydina Ousmane miim gi nag mooy Seydina Ali muy bismi mi jeex na moo tax yonent bi li ma la déggoon ngay wax léegi du hasard mu ne ana baytul ilmi wa aliyun baabuha al ilmu boo koy bind luy mujj miim ah. ilmu loo koy bind boo koy luy mujj miim moo tax aliyun mooy miim waaw ah. waaye koo fekk ci but mu taxaw am na ku muy garde ñamuy muy garde ko doole aliyun gardien la ña muy garde doole ña muy garde nga ca biir néeg ba moo tax Seydina Cheikh mi xàmmee hmm. biñ ko ko laajee ne ko saxaaba yi werante daf ci daf ci bari ku gën moromam mu ne niñ toftalante Seydina Cheikh moom wax boobu la wax rek bàyyi dañ ko laaj saxaaba yi wax ji bari na nuñ gënante mu ne niñ toftalante Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali mu ne ñii ñoo gën ñu dut ñii mu ne ñii ku dul rasulullah ñoo la gën ñu ne ko xataa yow Seydina Cheikh mu ne ba ci man jël loxoom teg ci dënnam ñu ne ko ak sa wilaaye gi la sa maam jox yëpp yëpp mu ne ma wax leen nag li xew loolu yëpp li muy rëy rëy rëy mu ne mu ne maa ngi lay géñal ci yàlla ne ñoom saxaaba yooyu fas yiñ daan war di dem di xeexi puurit mi daan génn ci gémmiñi fas yi puurit mi de xam nga boo ko dawalee bi dënn bi tàng ah Maodo mën a wëy xitaalu ah. num ko waxee Aziz Mbaye di ko wéy waaw hmm? kañ ah waaw kañ ca noonu ya kon eh, Seydina Cheikh li wax rek moo am niñ toftalante lañ gënante loolu ñun taalibe Cheikh yëpp nangu nañ ko Seydina Cheikh ne puurit miy génn ci làmme ci gémmiñu fas yi mu ne bu génnee lala ca tisati yow laal la nga yëg ne am na lu la laal ndax sedd ba xam nga day sedd te yàllaa yéeme alir bi fas di daw puurit mi bu la laalee day sedd na Cheikh ne na bu laalee nga yëg ne am na lu la laal ndax sedd na ñu ne ko ah mu ne loola la la laal loola laal la moo ma gën man Seydina Cheikh mu ne puurit mooma la la ci tisati moo ma gën man Seydina Cheikh waxuma saxaaba bi waxuma sax fas wa kon kii teel na dégager bopp loolu xam nga ci lan la balaa ni ñi naan Chérif waxati na xam nga ci lan la loolu ci garaat la waaye bu dee ci pouvoir nag mu middu kulli awliya rahmaani Macky Sall pouvoir la yor wala garaat jeex na ñi ko wër ñoo am garaat waaye moom pouvoir la yor bu dee ci pouvoir nag ma baraza ngay ngay jëli lu jógee min xadaratil xay bi yonent bee koy taat bu jàllee ci yonent bi Seydina Cheikh a koy attéyir moo koy segg door a jox gaay moo tax Seydi Aboubacar si ne mu midd kulli awliya rahmani abil abbasi ahmada tijaani mu middu kulli awliya rahman abil abbasi ahmada tidiane ñoom papis bi yaay ñoo yor ay grade waaye ma président Macky Sall li pouvoir la yor ndax ku ko neexoon tey léegi mu dégraté la balaa jant bi di so dootuñ ne colonel dootuñ ne général xam nga général fa la wax ji yem te bu ko neexoon léegi mu dégraté bi général bu ko neex te moom kenn mënu ko dégraté moo lay woon ne pouvoir la yor jeex na pouvoir ak grade du benn bu dee ci pouvoir nag Seydina Cheikh mu middu kulli awliya rahmaani bu ne kulli awliya rahmaani nag ñëpp a ngi ci biir dégg nga wax bi kon ñu bàyyi xel saxaaba yi te kenn du ñoom li ñu am tey buñ ci jotee yàlla ak ñoom grâce ak ñoom xoolal Seydina Aboubacar li li xaaji Sidi Mbaye Sidi Mbaye wax jaan di la matt tey jii ñun ku ci àndoon ak sa kilifa la rek boo moytu bu la pont jamee rek nga ne sëriñ bi ma wëññeeku ndax damay dem hôpital wala déet léegi nga wëññeeku dëpp seeti noo fajo nga toog jaani ñàngoor boo xam ne du jaanu kese-kese ndax jaan jooju jinne la jinne li tax muy ëpp lu muy formewu wu ci jaan jaan la gën a jël moo tax bu naan bu ma déggee ko naan gis naa jinne ma ne moo mën a kàcc na wax ne gis naa lu ma jommal waaye jinne bi naf bi bi gis bi jasadi yi gis ko yombut moo tax jinne forme jaan la gën a yor moo tax mu soppeeku jaan jinne jooju am na ñaar téem ñaari yi at ñu annoncé ko yonent bi ndax jinne dañ gudd fan jinne bi gën a gàtt fan dana jund juróomi téeméeri at moo gën a gàtt fan ci jinne yi cinq cents ans mooy jinne bi gën a gàtt fan ñaari junni at dund na ko ñu annoncé ko yonent mu di ko topp di topp leer gi ni Maodo toppee leer gi di topp leer gi fu mu dëgg ne leeru yonent baa ngi fu mu dem dëkk sanc fu dëgg dégg ne leeru yonent baa ngi mu sanc benn yonent bi gane àddina benn muy gàddaay mu bëgg ko topp si naa Abubakar bëgg ko ko xañ xañ bi mooy dañ ko waxoon ne ko boo bëggee barkeelu ci moom xuntu ma muy dugg bu jógee màkkatal mukaram duggal ci xuntu mu xaar ko toog na fa juróom-ñeenti téeméeri at xam nga sëñ bi loolu ni mag magum jëmm nag toog juróom-ñeenti téeméeri at di xaar benn benn soppeem nga ñëw nga ñëw bëgg ko ko xañ dina yomb ah, li jigéen ñi di wax du yomb ci moom de wala déet juróom-ñeenti téeméeri am na ko fa di xaar bi yonent bi ñëwee ba dugg naa Abubakar li sëñ si di wax mbub mi mu yoroon fu mu gis ne pax la rek mu xotti saañ fu gis ne pax la rek mu xotti saañ fu mu gis ne pax la mu xotti saañ ba mbub mee ci des mu xam ne bu ko summee def yaram yi neen te benn pax a ci des mu seet fi pax mi nekk mu toog fa am na ñu ne dafa toog jël loxoom dëpp ci pax mi yonent bi salaay sallam te booboo wér dafa toog jël loxoom dëpp ci pax mi loxo càmmuñam boole ci yonent bi tëdd ci pooju ndeyjooram mu jël loxo bu teddam bi moom Seydina Abubakar di ko di ko raayal kawar gi waaye lu mu raay ci kawar gi rek barkeelu ci moom lu mu raay ci kawar gi rek barkeelu ci ne yonent bi danga xawal xaw a sonn toogal tuuti noppalu bi yonent bi gëmmee nag mu yëg ne yonent bi gëmm na te mu xam ne bu yonent bi jógee rek dañuy dem jinne ji xam na ne bu yonent bi jógee day dem te Seydina Aboubacar mi fasu ko yéene xajal mu commencé ko mat juróom ñaar fukki fett fett la ko fett benn bi rek xajut ci nit ndax bu ko fettee lii sabab bi bu fettee fekk si Seydina Aboubacar teg loxoom ci dën ci bopp yonent bi di raay su raayee mu wàcc looloy secret bi <laughs> yonent baa ngi tëdd ci pooju Seydina Aboubacar gëmm bëtam yu tedd yi Seydina Aboubacar jël loxoom di ko raayal kawar gi waaye su raayee rek raayaat ci kanamam loolu ñaar profité nañ moom ak doomam sayyidatuna Aïcha ana ma dikke waaw kañ moom xam na li tax ma ne comme ana ma dikke na Aïcha keroog bi falaxi ak naa si wàccee yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam balaa ngay tëddati jàng ko raay ko ci sa yaram yëpp yonent bi xam ne doonte mën na ko sax waaye yéene njobootam daf ko fekk bi muy wàcc mu ngi ci néegu Aïcha mu guddi jot mu ñaan falaxeeg naa si ba noppi raay fi jot yëpp gannaawam ba ci cësi tàng ba ci tëstanam mu ne Seydatuna Aïcha comme sama loxo jotiwul foofu tàllalal say loxo ma jàng falaxeeg naa si ëf ci nga raayal ma ko ci sama ndong ba ci sama cati tànk te ci samay tëstan Seydatuna Aïcha tàllal yonent bi nganam nganam falax ak naasi ëf tuf li ci mu raayal yonent bi dalee ci ndongam ba ci tëstanam dal di ñëw moom raay ci kanamam yonent bi ne ko lii nag mu ne ko bu ma ko jàngoon du ma ko am yow bi nga jàng moo ëpp doole bi may jàng man ba ma naroon a jàng sax faf naa ko ba ndax doyloo naa bi nga jàng ndax bi nga jàng mënu ma am doole bu toll noonu bi ci des samay loxo laal na sa yaram wu tedd bi te boo jànguloon dara ma laal sa yaram wu tedd wi rek raay ci sama kanam muslaay la sayyidatuna Aïcha ko xam yonent bi baayam moo ko ko xamal moo tax baayam Seydina Aboubacar bi yonent bi mu amee chance yonent bi moo tax Aboubacar li mu am kenn amu ko ba yonent bi di gàddaay ci poojam la tëdd bi yonent bi di génn àddina ci pooju doomam la tëdd <laughs> kii moo rëy may Ah, kenn amul lim am ba yonent bi di gàddaay ci poojam la teg boppam ba muy génn àddina ci pooju doomam la ko teg muy saydatuna Aïcha ah, lim am ci diine ji kenn amu ko kenn amu ko gannaaw rasulullahi loo bañ bañ seydna abubakar a samp tànk lim am kenn amu ko dégg nga ci jeexal bu seydna abubakar raayee ci bopp bi raay ci kanamam bu ne ko tef bu raayee ci kanam moom mu wàcc waaye comme jinne daf dañu garaaw yàllaa leen xamal huwa yaraakum huwa wa qabiluhu min haysu la tarawnahum yàllaa ko wax yonent bi de ne ko ñu ngi leen di gis yow ak sa njaboot foo leen dul gis na nga def très attention ci ñoom moo xam ne kii jekku na ko maanaam moom jinne Seydina Abubakar jekku na jinne ji comme mu ngi raay di raay te day wàcc mu teglante fett gi taf taf taf bu dóoree ñaar mu dóor benn benn bi monte mu dóor ñaar mu dóor benn benn bi monte bi mu yeggee ci juróom-ñaari dangar ci la ñaq wi commencé nag soppi Seydina Aboubacar dangar dangaru jaan daf lay soppi boo maari day taali boo gisoon ko jàmm jaan mat bu ñuuloon day xees pecc ndax dangar ji bu xeesoon day weex tàll bokkul ak ku courant jàpp moom courant bu la jàppoon mara de Italie loo xees xees da ñuul kuk boo ñuuloo nit dangay gën a ñuul ni këriñ jaan nag bu la fettee dangar ji boo ñuuloon da ngay xees pecc ci la ñuy xam ne am na lu la dugg parce que du dangaru kese-kese bi mu ko màttee nag ba mu yegg ci juróom-ñaari fett-fett ci la dangar ji monte nag Seydina Aboubacar di ñaq waaye mu ko résisté nag la tax mu résisté ko mooy pooj yonent bi bi ci kawam bopp yonent bi ci kaw poojam moo tax mu mën koo résisté waaye bu tutoon lool dee na bu yàgg mu résisté ko waaye dangar ji monte na ba soppi yaramam ba yaramam yor tàngoor commence di ñaq mu sëgg ni sëggee di ko muñ waaye jooyut Seydina Abubakar du jooy mukk nim mu sëggee di ni muy sëggee rek ne pat mu am benn ñaq bu topp toq ci ko jëwu yonent bi ndax dafa teg ndong gi ci pooj bi tegul lexu càmmoñ tegul loxu ndeyjoor ndong li la teg ci pooj bi ñàq wi moo toq ci jëbi yonent bi siggi ne xifeet ne ko Aboubacar lan la mu ne ko dara dafa mel ni am na fi ma teg sama loxo bi dafa mel ni daa am na lu fa ne am na lu fa nekk yonent bi ne ko dindil mu dindi loxo bi xonq cur ndax ay fett fett yonent bi yër ne ko yow diw loo fiy def xam na turam bu yàgg bokk na ci Maodo indi turam indi na ko jaan bi kañ demal nga yëri Maodo am na yum dul indi de am na yum dul indi yooyu ci secret yu mag yi lay bokk yonent bi ne ko diw mu ne ko ah mu ne loo fiy def ak lu tax nga matt Abu Bakarin xanaa xamoo ne man ki gën ci mbindeef maa fi toog ngay def suul adab lay ko ni hudhud loolu la ko wax de lay ko ni hudhud layee woon ca Suleymaan wala ma def la la Suleymaan waxoon hudhud ci la téere yi door a am luñ bind mu ne ko kii maa ngi fii juróom-ñeenti téeméeri at di la xaar bëgg barkeelu ci sa jëmm ji pour teg la bët mu bëgg ma laa xañ ñaaw ñàkkewu ma la teggin waaye xër ci yow ak bëgg laa xam bëgg laa gis ba tiitaroo ko ci samay morom ëllëg looloo tax rek waaye du suwul adab mu ne ko jéggal naa la daal dina Seydina Abubakar tàllalal mu tàllal ay loxoom benn fatiha la jàng ëf ko ci loxoom ne ko raayal mu raay mu mel ni jaan masu ko mat benn fatiha weesuwu ko benn fatiha la rasulullahi jàng Seydina Abubakar raay ci kanamam mu mel ni dara masu ko mat moo tax am na yenn saxaaba yoo xam ne mos nañu dem ci benn dëkk am ku fa jaan mat ñu ne ah, waa kër yónnanti bay romb de dimbale leen ñu balaa jaan ji di ko jekkali amuñ ku ko lugg amuñ dara ñuy xoolante benn waay bu mel ni Sidi Kunta walanteeru ne leen man mën naa koo faj ñu ne ko ah bismillah boo ko fajee loo soxla mu ne jox leen ma juróom-ñaari gàtt léegi ma faj ko ñu kii gañ balaa dee mu ne jox leen ma juróom gàtt rek ñu ne ko faj ko ba noppi mu ne maa ngi jokk ci barke yonent bi moom ma jàngoon fatiha ba aboubacar jaan ja matte ko fatiha boobu maa ngi jokk ci fatiha boobu bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyaka naabudu wa iyaka nastain ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala dalin ne ko ana fan la fu mu la matt mu ne ko fii mu ne ko tëf ci barke yonent bi waa ji ti tissooli dangar ji dem mu ne jox leen ma samay gàtt gaa yi jox ko juróom-ñaari gàtt mu boole ko ci màng bi gaa yi naan ko waaw léegi nag bu ñu ci rasulullah di nga xam yow dangay ngay fayeeku léegi ci ñaan topp ko ci yoon wi topp ko ci yoon wi topp ko ci yoon wi topp ko ci yoon wi bañ yegg si bi ñuy jóg yonent bi rek mu ne ah alhamdulillah tawassalu bi jaahi fa inna jaahi indallahi azim keroog la rasulullahi wax loolu tawassalu bi jaahi fa inna jaahi indallahi azim dee leen jottaliku ci sama barke ak sama daraja ndax lu rëy la fa yàlla daal dina ko jëlal lew na la ndax fatiha bi kenn mënu la ko fay ah moo tax sëriñ di fayee ko am nañ ci droit waaye boo fayee ko it na wér ni waa ji <laughs> foofooy problème boo fayee ko na wér ni waa ji wére bu wérul delloo ko yëfam wala mu may la ko wala ngeen charto balaa mu la koy jox ngay ne ko wér ak ñàkk wér laa ci yemale <laughs> mu ne la waaw d'accord naa nga jël waaye boo ko ne incha allahu dana wér bu wérul delloo ko xaalisam wa illa lekk nga riba bu wérul delloo ko alalam bu alalam bu aajoom fajuwut delloo ko alalam wa illa wa alayka ismu bakkaar war na la yàgg yàlla ëllëg waaye dagan na foofu la jóge te loolu ñëpp ñëpp a ngi koy jàng su ko defee nag kon kooku mooy Seydina Aboubacar yàlla na ñu yàlla defal sutura te ñuy barkeelu ci yonent bi bu baax a baax a baax na ñuy barkeelu ci moom na ñuy barkeelu ci moom lu la jaaxal jaaral ci sa sëriñ ci sëriñam ci sëriñam ci sëriñam ba ci rasulullah nga njëkkee say salaatul fatih boo dul tiijaan defal say salaatu ala nabi te bul tàyyi di jokk ci yonent bi bi soriwul dara laqad jaakum rasulun min anfusikum kon mu ngi ci yow laqad jaakum rasulun min anfusikum sooy julli ci moom azizun alayhi ma anittum xarisun aleykum bil muminina raufun rahimun yëpp di nga ko am dinga am yërmande di nga am yërmande di nga am cofeel lépp yàlla dina ko dëxëñ ci yow booy julli ci yonent bi laqad jaakum moo la ko firil diiru ngay julli ci yonent bi yaa ngi ci biir yonent bi moo tax yonent bi ne bu ngeen di julli ci man yàlla day yebal malaaka moo xam ne day ubbi gémmiñam ba ëpp sa gémmiñ mu dëpp ko ci